Abu Hafs mooy Omar ibn Xattaab radiyallaahu anhu ki nga xam nag ne ci moom la yàlla feeñale diine lislaam de farxawaata jajjuru xabaaw noonu ya de lu jiitu Omar jébbalu yonente sallallaahu alayhi wa sallam daf doon nëbbu moo ca daaru Arqam ibnu Arqam ndax ragal rek lori xéefar yi de Omar ibnu Xattaab na ne dafay dox bés ba taseeg kenn ci saaba ne ko yow it jàng nga xabaab yi nu larati jàng nga mu ne ko bu ma jàngee itam day ku la gën a naqari jëkk damaa jàng te gën laa jege mu ne ko kan mu ne ko Fatimata sa jigéen ak jëkkëram ñoom ñëpp ay julli lañ de mu ne Fatimata sama jigéen jàng na mu ne ko moog jëkkënam yépp ay julli lañ Sidina Omar dal di ñëwal kër ga daldi di dal dóor jëkkër yi jigéen bi ba naccal kanam nga jigéen ba jóg nag poñe si dinaa war a xas ko saaga ko ne ko xéefarab xaraam bi jéblu nañu mu neex la mu naqadi la ànd ak sa torox ak bakkan ñun topp nañu yàlla ak yonentam le loo mën defal mu ne man bi may dugg ci jubnee bi sax mu mu xaw a rus nag ndax li mu def gorom bi ci kaw tooñ rek mu ne man bi may dugg néeg bi sax li ma dégg ngeen di wax lan la ñu ne ko téere bi yàlla bi lañ doon jàng alxuraan mu ne ma seet li ngeen di jàng jigéenam ne ko doo ko seet ndax yéefar nga mos la sangu janaba te alxuraan yàlla dafa wax ne kenn du ko laal lu may ko sangu de mu ne su mu ne ko waaw demal sangu mu sangu ñëw jëkkër jigéen bi yoon ko taama anzalnaa alayka alquraan litasxaa illaa tazkiratan liman yaxshaa tanziilan mimman xalaqa al-arda was-samaawaati wal-arda ar-rahmaanu alal arshi stawaa ah lii rafet na di mu won saaru hadiid yusabbihu lillaahi maa fi samaawaati wa fi l ba ci huwa al wal-aaxiru waz-zaahiru wal-baatinu mu ne yal na Quraysh de wax ju rafet ji la Quraysh di daw di ko dawloo nit ñi wan leen ma fu ma man nekk de ñu daal di ko tegtal ne ko yonent nga ca daaru arxam mu daal di jiwal si kër arxam rek ba mu jubee barab ba nit ñi rëj rëj loo laan ñu ne Omar ibn Xataab ngi ñëw te moo gën a xiis ci ñun Xamsatu fekk jébbalu na ca démb ja Xamsatu ibn Abdul Mutalib Xamsatu ne bàyyi leen Omar mu ñëw dafay ñëw rek jébbalu si loolu la mën a def su defee lu ko mooy jaaseem jooje mu gaddu moom laa koy reye de yonent ne bàyyi leen maak moom ba Omar jubee waaw kër ga rek yonent génn gàttandu ko daldi ko poñe pipp ko ne ko Omar dayal fa suufulaa day moos lu may la wàcc ci xaat ak samuur wàcc ci yow sidina Omar daldi karkar lox daanu ci suuf ba mu jógee rek ne ashadu an laa ilaaha illallaah nag ñu bég ba julli jotee yonent ku nekk na utam xunt moom dem làqu fa jàpp julli te ñëw Omar ne lool lay du fi am a ah, xanaa du ñoo nekk ci dëgg su fekkee ñu ngi dund ak suñ dee yonent ne ñoo nekk ci dëgg suñ dund suñ dee mu ne ñuy jaamu jibteeg xosa ci makka di ko feeñal yooyu nga xam ne duñ dara di jaamu laaw di ko nëbb loolu day tey lay mu jaam ci makka mu ne ñu daal di génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari sappe fenn sa Hamsatu jiite ca Ibn Abdul Mutalib fenn sa Omar ibn Xataab jiite ñu sank yonent bi nag di ñëw ci kanam kaaba ga julli ci kanam xéefar yëpp ñu ne ay xam na nag Omar ibn Xataab jàng na waaye dëgg Quraysh yëpp danañ jàng kera ba mu jébbaloo la lislaam féete kaw kéefar ku ma waateem sa wi aji jubla sa aji jubla de mooy Omar ibn Xataab mi nga xam ne xamul lu may wax dëgg te àtteem xamul lu may àtte bu jub de benn naafeq dafa layoog benn yahud fekk na naafeq baa naa naafeq xam na ne yonent moom dëgg rek la yaate yahud ba nag lam da doo yahud xam na ne yonent dëgg rek la yaate mu ne nañ laayo ji ci yonent bi naafeq ba ne ko déedéet nañ laayo ji ci Kaab ibn Ashraf njiital yahud yi xam na ne Kaab ibn Ashraf moom ku ko ger rek mu àtteel la moom naa naafeq ba moo tax mu xëccu loola yahut bay lànk ne ko nañ dem ci yonent bi rek ñëw ci yonent bi yonent bi àtte leen yahut bàyyi ko mu ne moom àtte yonent doy ko ñëw ci sidina ko àtte ñu sidina Abubakar àtte àtte la yonent ba ne moom boobu ñëw ci sidina Omar ne ko àtte ñu de yahut ba ne ko yonent àtte nañu kat mu ne àtte yonent doyu ko Abubakar àtte nañu mu ne àtte Abubakar doyu ko Omar ne ko toogal nag mu ñëw léegi àtte la dugg ci néegam rek génn jaaseem ñëw dagg baat ba ne ko ku xatte bi yonentu doyut xatte Babacar doyut la Omar moom nii la lay xatte ah ñu dal di ñëw ci yonentu ne ko Sidina Omar rey na nit Sidina na julit nañ ko rey ba yonentu xaw a jaaxle laaya ji dal di wàcc nag wane ne kooku du julit naa fekk la rek tey rey kooku mooy Omar ibnu Xataab ci jamonoom dafa maandu ba nga xam ne lépp topp na ko yar na mboolem lu yàlla bind ci jamonoom Omar yar na safara Omar yar na ndox mi yar na suuf si ci jamonoom Omar ibnul Xataab dafa amoon safara woo xam ne ataa ci jamono yonent daay goo xam ne at mu rek bu takkee laa bu demu ñëw lakk mi dina rek ataa ci jamono yonent jamono Babacar ba Omar faloo rek daay ga dëgg Medina ñu ne daay ga jógati na fakk Medina lakk mu ne daay ñu ne waaw mu dindi tañ laayam jox xalelam ne ko firi ko ca kanam daay ga ne ko jaama bi yàlla li ñuy wax Omar ibn Xattaab na na nga yem foofu bu lakkati dëkk bi yonent bi gannaaw tey de safara sa ne gamaj ci la Medina ga jëlake ba ba ba tey Omar yar na ndox mi niiru misra daf daa def at mu nekk balaa ball rek ñu sañseel xale lu jigéen bu gën a rafet takkal ko sànni ko ci soob ko mu dee eh, mbënn ma soog a bënn de te mbënn ma ci la mbay ma aju de bu mbënn ma dawul rek waa misra duñ bay tam ci ci mbay la ñuy dunde ba nga xamee ne saaba yi ubbi nañ misra ba moom ko Amru ibnu Aas yi la fa fal mooy gouverneur bi ba waxtu mbay jotee Amru bind ko de ne ko kat mbay mi jot na te nii lu misra rek kaame mbay mi bu ballut kenn du bay te bon dund du am ci réew mi te xam na xaada nag du ball mukk lu may ba dañ ko joxee ferawu jigéen ba gën a rafet waajal ko takkal ko de Sidina war na jox ma kayit ñu jox ko kayit mu bind leetar tukki na ci jaamu yàlla Omar ibn Xattaab jëm ci niiru Misra su fekkee ci sa kattanal bopp ngay dawee bëgguma sam ndox toogal su fekkee yaa ngi daw ci kattanal yàlla nag dawal ci kattanal yàlla ma ne du ma la jox dara dara dara dara salaam Omar ibn Xattaab ne sànni leen ko sama leetar boobu ñu sànni ko leetar ba niiru Misra daw ba weesu fa nga xam ne fa la daayam ba léegi kenn joxatu ko xale boobu le muy xam ne yar na ndox mi moom suuf si yëngatu na ci jamonoom mu dal di fab xeetam wane ko tër dóor ko suuf ne suuf dalal laa lu tax yonent dund ci sa kaw ba génn àddina yëngatuwu la Abubakar dund ci sa kaw ba génn àddina yëngatuwu la Omar ñëw nga naa nga yëngatu dalal laa feeg jënguma ci sa kaw waaw bul yëngu de waaw suuf sa dal di dal de kooku mooy Omar ibn Xataab de kooku mooy Omar